mbokk yi ak digital store indi tina gamme smartphone ak tablette Android yu bees tax dëgër këcc di ay téléphone yoo xamante ni entreprise bii di Crosscall daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér kenn jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala T5 wala s juróomi at lañ leen garanti looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel M5 X5 t ak S4 di ay téléphones yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq mën ngeen a dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la wala Gage, wala sax ngay sammi wala ngay dem tol wala ngay sport wala ngay ci chantier dara du len yàq taw len gaaw ci sunu boutique showroom bi ci avenue Bourguiba wala ngeen wote ci bi 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la corniche ci bi 33 823 77 87 tamit waaw coow li ni mu bare fan yi keroog uh, mu xam naa ne seetaan ngeen vidéo bi mooy fi saret yu bëri nekk mm-hmm. motu laa yoroon suur bi may dem marché boobu pour dem defi tiktok rek foofu oh, pour jël marché bi léegi si laay dawalee moto bi nag mm-hmm. léegi kaala yi mu dugg si ceen bi bi mu duggee si ceen bi maa ngi yoroon benn gàllaaj mm-hmm. maa ngi koy rango sax bu ngeen seetloo tiktok bi buum boobu nag moo ma def nii mooy chaîne bi ah. déedéet euh, mooy gàllaaj bi ma doon suñu gàllaaj yu ñuy ràngoo rek doo ko faral gis pour ñu def fi gàllaaj waaw waaw buum yu ñuul yooyu nag moo ma def nii ah, mhm, si moto bi mhm. Samba say kilifa biñ gisee nga commencé def tik TikTok ñëpp apprécier rek ba xam woowuñu la di la wax na ko arrêté nanga ko bàyyi wala lan la waaw dama xool ñi ëpp ñi xam ne ñi euh, ëpp ñi laa xool mhm. xooluma ñu tuut ñi parce que ma tuddee woo ma mu ne wax nañ la télé nangam nangam eratel lii mhm. ma ne ko moo nax wax ko sax man lii dañ ma si fay loolu laa ko waxee mu ne ah comme que noonu la kay eh, kon continuer mhm. ah ñeneen ñeneen woo nañ ma di mu wax ne loolu eh, daal am na sama mbokk pël yoo xam ne ñu ngi may wax ne dangay yàq eh, dero pël parce que pël du def nii mhm. pël day am kers waaye xamuñ lu ron bi may see xamuñ ko ñoom waaye nag kay danañ dellu si parce que comme gis nañ li Euh, waa Dakar woo nañ ma mhm. teral nañ ma ñoom it dinañ jéem a roy ñu yàlla na leen yàlla jàppale bu ñu royee ñoom it ñuy jéem am ndax mu ngi leen di siggil sax ndax am na benn vidéo nee na ku leen waxoon ne pël du yor iPhone ba nga yor iPhone 11 waaw am nga ñuun pël dañoo dañoo nekk nilaar mhm. muy niraa maanaam nit koo xam ne eh, boo reyee doo mën a lii parce que tey man boo ma waxoon jëndal iPhone quatre cent Euh, damay ah dama ko dama koy jënd xar parce que bu daanoo tooj ma dama koy ñàkk. waaw waaw xar dina dee waay tey boo jëndee quatre cent mille yi mun nga si am ñeent fukk kar ñu ngi jur yiidi di dee rek. waaw yii di jur waaye bi iPhone bi nag bu wàddee fii tooj. pare nga waaw léegi xam nga xam woloor la xam nga nga yëkkati benn woloor def ko si man mun naa ko man fi mu toll nii mun naa ko Eh, waaye tey am na sama mbokk pël yoo xam ne boo leen waxee jëndal iPhone dañ lay wax ne déedéet am na ñoo xam ne du dul iPhone sax bëgguñ ko waaw loolu moo tax nag ñun voilà tolluwaay la moo tax ñun ñu nekk ñoo xam ne ay ay ñu ko waxee kawkoow mhm. man nag dem leen woon ne man kawkoow bu mag laa mhm. eh, ñëw Dakar taxul ma nekk eh, liin ni waaye kawkoow waaw du ma saay yëre yi ngay sol doo sol ay koskoon loolu nga ñu bëgg wax. waaw xam nga boo bëggee nee si àdduna dangay laal fii laal fee ku ah, nga nga nga woon la kii olof la kii pël la ah, kii séeréer la kii naar la léegi ku ne nag boo ah, nekkee si événement da ngay bëgg ku ne gis si boppam parce que place bi tey kay na pël mu ngi ñëw fii naar mu ngi ñëw fii olof baa ñëw fii ñëpp nga nekkal fii daal man ñëpp laa nekkal fii amul kàjje bii olof la nangama nangam amul lii man moom ku kam Samba Ka xam na ne ñëpp la yemale waaw. Mm-hmm. Samba bi nga njëkkee dégg sa bopp ci journaux yi dégg sa bopp fépp jour boobu loolu lan la la dañ ma ko wax seetaanu ma télé nag dañ ma woo téléphone ñu ne yow génne nañ la RFM xaw ma euh, di la wax ne ay Sadio nga dëkk yow Affe Jolof nga dëkk ma ne ko wax ngeen dégg de kon man bi ma déggee loolu tim dem ma gën a yokkaat jom am na dem ba ñu ngay wax nga ñu génne la télé loolu da la yokk job waaw parce que am na ñoo ko soxla amuñ ko yàlla na leen ko yàlla jàppale ñu am ko ñoom it. Hmm. bi moom daa mel ni defar na tabaski bi ndax Adamo yónnee na ko xaru tabaski. Hmm. Bamba tamit nee na moom dina solal soxna si dina dina la solal. waaw defar na tabaski bi. lii la si yàlla suñu borom jublu woon parce que yàlla si doomi aadama la koy jaarale moom du la jox. waaye si bamba la ko jaarale bamba jox ko sàmm jox ko maam jaara kon dañuy wax ne bamba yàlla nga doon yàgg doon bamba si biir bamba ya jërëjëf wuyoo tur bi bu baax a baax donte wuyoo na ko ba pare sax bamba léegi boo ñu mënoon a indil te nii rek ñu xool wan ko sénégalais yi xool teraanga bi nga defaral sàmba waaw man de xam naa ne garaam moo gën si man hmm, ak nga xoolal maam Diarra tax nga choisiral ko bula bi. kon kii li wax. bàyyil man moo yàlla jël bëla bi. pël moom bëla la gën a bëgg. ak wert incha allah instant bi sax comme ni ngay téye yëre yi nii na ko natt fii sol ko defal ñu rang. bi internet Dakar Buzz nee naa leen ñun waa dakaar bës duñu tàyyi ci toog ak moom ndax nitu teraanga la nitu daanaka moom moo moom Dakar Buzz sax mën nañ koo wax mooy suñu téyeer ñun. Bamba tey bëggoon nañoo xam secret bi carrément la moo tax fu ñu tuddee yëre bu rafet tusi bu baax rek ñu ne Bamba. waaw maa ngi nuyu euh, sénégalais yi may seetaan à travers xam nga euh, aussi euh, di nuyu aussi waa diaspora bi di nuyu aussi waa Dakar Buzz li nga aussi dëgg la ñoom samay xarit lan xam nga ñoo ñoo tàmmul seen bopp waaw ñoo ma bëgg seen bopp vraiment lu ñu xew rek day ñëw envers moi may aussi may dañuy dellu seen njukkal bu baax a man moom sama secret secret bi je crois ça fait ay quinze ans maa ngi wax amul benn amul amul ñaar benn dong muy liggéey man loolu laa gëm xam ne carrément nit ki fu mu taxaw rek wala ku ko naw rek pour man ci liggéey la ko doon nawee Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom met sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis 5 ans. C'est le M5, le X5, le T5 et le S4 les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous ne pouvez imaginer puisque prouvé aux normes militaires et doté d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils avec anti-choc. Ils sont étanches dans l'eau, du jamais vu. Les appareils Crosscall vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles au bureau comme en dehors du bureau, pendant votre sport ou pendant les travaux champêtres, les chantiers ou en mer et partout. Contactez-nous au plus vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 ou à Saint-Bédioune sur la Corniche 33 823 77 87.